أيسر من الله عند الجاول إبليس إذ ناديته بيا ولي نفع لغير الله قبل فندري بأهل بغن الأسود كدري نفى لغير الله في الذكار كل أزل جره مكار السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yéen mbokki jullit yi yéen mbokki taalibe yi seen mbokkum bi moo leen di nuyu te di leen fàttali bis bu mag boo xam ne bii dafa dëngmal si ñu bisu màggalu Tuubaa ndax boobu bi ci borom di dem lim ci lim ci façon lépp yàlla defal na ko ci te boobu lim ci façon moo di lu mu fa jële rek ci ay xéewal ak bu ko jullit yi fi bàyyi yëpp kon loolu bis boobu moo dellusi ndax moom sëñ Touba mbirum sunu borom lay doxee mbirum yonent bi lay doxee yàlla moom daraam du màggat ñu yeesal nangam loolu waxin wala ah, la waaye yàlla daraam du màggat dañ di ko yeesal xanaa fàttali rek kon nag bis lañ di fàttali bis bi nag ni mu tëddee bi borom dikkee tax wax ñëpp man sa jëm lott naa ci li ma defal ma sant ko kon daal bëgg ngeen sant ko kon nag digal na kilifa digal na kilifa yëpp ñu tudde ko ak ki dafa ko nekk fa nga nekk nga bégal sa njaboot ci bis boobu tam ko tàmbale ci ganaar ba ci këlim lu ci waay am rek dama ko def sa bis boobu ñooñu ne kii dafay dema dema dema yàgg na soppi ko def ko ak tabaskiwaat même que mu ne loolu bàyyi ko ndax loolu day biir daal man nag bàyyi nañ ko ni bi loolu amee bañ tuddee ko ak màggal bi sëñ Fallu toogee nag ci ak baaxam ak ci laabiram ak ci ak ak ci bëggal jàmm nit bëggal jàmm nit ñepp julit yépp bëggal leen jàmm nee nañ ko nañ ko nañ ko andi ci dëkkam bu tedd bi nga xam ne lu mu am fii la ko amee moo tax sañ fallu andi ko ci dëkk bi kon loolu mooy bis bi ñu doon ko fàttali fukki fan ak juróom ñett day nekk safar dëppug talaata di santit suñu bokki bopp yi nga xam ne ñoo sa suñu rek gis naa ni ñu jàppale ak taalibe yi ñu jàppale ci liggéey bi nga xam ne moom lañ sumb Dihna ninja pula ninja ninja met pasti ninja met taxaway ni leen sant bu baax di leen gërëm ñaar ñaar fukk ñi ak juróom ñett nag moom moom la ko sëñ bi tàmbale woon moo tax moo tax ma dee ko leeral di fàttali it kaamil yooyu ñu daa jàng kenn ko dëkk na ko jàng koo mënta jàng na nga ko jàngulu ñetti kaamil benn bi yonent bi benn bi sëriñ bi ci mbiru asaka it na ma ko waxee woon sëñ mun taxa rek nañ ko defee noonu ndax bin ñaanee yàlla ba yàlla xéewalal nu man àgg yi mu àgg kon nag kenn ku nekk na nga ba xel gën dal di génn asaka yi nu mu koy jox ko ñu koy yoroo waaw noonu moom la ko suñu borom dig jox ko juróom-ñett yi ko yayoo waaw noonu la ko noonu suñu borom diglee kon nag bis ma bopp bàyyiwuma kenn bisum ñëpp ni ko borom waxee woon rek ndax nee ma cantam ak borom lott na ci kon nag ngeen dimbali ko ci li mu bëgg ngeen sant la ko yàlla. gàmmu gi itam ngeen fonk ko baax te ba ko xel te fàggandiku ko kon nag ndigal la ngoogu li ci des nag man samay wax dafa leerut ba tax li ci des jox naa ko Cheikh Bass mu àggale ma samay wax kon nag na ngeen na ngeen fabuwaat takkuwaat te am ci yitte def seen pastéef ngeen baal na xaq nag rek assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu allama arrahmanu fi safina بأنني خديم ذي المدينة برأني الله غدا كناك من كل جانب إلى المناكب